daanaka moom sax deful dara mais kay def casting ba fekk mbay Assane boo xamante ne xamul ci médecine dara ñu jël affaire bi ne non c'est du management gestion managériale la dénk ko secteur santé mais kooku moo tooñ Sénégal président baal ma de may ma ko rek dama la ko ñaan <laughs> président waruloo jël koo xam ne xamul ci santé lu ci ñeneen ñi xam ñi xam nga jiital ko ci mbir moomu pour que mu orchestré ko yaa ko wax léegi nii santé ak éducation jëloon nañ fii suñu papa bi Serigne Mbaye Thiam ñu ngi kaa bu baax di ko di ko jaalewaat waajuram boobu mu ñàkk di sunu maam euh, di ñaan yàlla xare ko aljana gën a kawe yàggal saraxam ci ay loxoom ak njaboot gi. allahumma amiin ñu ñu gis ne que mooy actuellement ministre de l'hydraulique. Mhm. yàlla na ko yàlla suturaal parce que ndox mi jaxasoo na trop. bi mu yoree éducation aussi éducation dafa jaxasoo woon te laata ministre Mamadou Talla euh, daanaka moom moo fa nekkoon et c'était difficile te loolu ñoom ci seen bopp defuñ ci dara ka leen di jël di leen fa teg président yi baal ñu rek <laughs> moom mi leen fay teg mais loolu mooy problème te teg bi lan la c'est pensé dans le sens politico-politicien alors que ça doit technique ça doit de compétences fortes mooy que kii domaine am lii la il s'en occupe nañu bàyyi gestion managériale ak non non non il a tout ce qu'il faut pour gérer les gens du du gestion c'est dans le fond. c'est la connaissance et quand c'est pas conséquent dans le fond. résultat yi mooy lii mooy que par exemple wax nañu COUD bi ko sunu kilifa bi Abdoulaye Diouf Sarr yore euh, gisoon nañ ne que c'est des recrutements voilà jël caser ay nit et cetera. affaire de copinage. voilà ah, mais loolu dafa yàgg aussi hein. parce on l'a vécu avec les régimes. Diouf. régime Senghor ouais. ñoom ñëpp ku ci ne boo faloo say nit ak say. non Senghor Senghor sax je ne pense pas. le Senghor était beaucoup plus. ou moins rigoureux par rapport ak loolu. il était plus dans mais boo ko xoolee da nga xam ne moom il était rigoureux. rigoureux ci ci te jamono sa sax Hmm. amul woon genre nit yi quoi ñi nga xam ne dañuy wax ni ki ouais ah, même avec Abdou Diouf aussi mais man je pense que loolu sur fu mu ëppee woon muy nguuru Abdoulaye Wade à partir de 2000 mais loolu ñoom waruñu tamit jël lu baax li nga xamante ni ñi leen fi jiitu ñu bàyyi nañ ko fii di ko defee parce que le Sénégalais a l'air fatigué il me semble ah hyper fatigué a l'air <laughs> wàcc na ay waay yàlla na ñu yàlla suturaal. ci coono boobu la ñuy desandi ba tey reprise de l'école la pénurie d'eau risque-t-elle de tout faire bloquer encore une fois. am nga ndox sa kër. waaw tey moom am nga ndox. man mais day coupé di dem di ñëw par secteur la wax dëgg yàlla man fu ma dëkk moom. am na wax dëgg fa neex yaa Mermoz la dëkk. <laughs> monsieur Cissé am nga ndox. waaw ndox mu am naa ko. ok ah Aminata. ah oui. ah ndox rek moo fi amul ndox. fan moo amul ndox. yow rek kon. man am naa ndox. am mais am na ñu amul. mais am na ñu amul. <laughs> waa léegi fi mu nekk nii euh, sunu directeur général bi Charles Fall ñu ngi kaa nuyu bu baax SONES. ak ak ak waa ñoom Ndiaye Diop Ndiaye maa ngi la nuyu bu bu seen o euh, ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ñeen ñi ak ñi bokk ci nguur gi dañ ñu ngi tudd gis nga ñaw muy jaay kii di jéem a ruube ñëpp am nañ ndox. déedéet ñëpp amuñu ndox mais pourquoi tu penses comme ça. je pense comme ça parce que simplement on connaît comment ça fonctionne. waaw ouais, mais ne léegi parle pas place léegi on ne parle pas à loolu mën a mën a mën a <laughs> noonu la ma kaa gisee. kenn waxu ko yow dem ma mën a. non non kenn waxu ko aw mën a yow rek. xam nga lu tax suñu ay jàmm mbokk lañu suñu ay am di jàmm ñii ñii ay bàjjan lañu ñii ay tante lañu ñii ay nijaay lañu fi ni fi ñu waxee ni léegi-léeg nga gis ci kenn si ñoom ree daan ne booy bii kàccoor la ñu kafe ko neexal la da ciy baax dama bëgg a wax ne waaw. ku lay ñoppati. Ah, <laughs> ba pare di la aayoo nene mooy. Ah, Aminata gis nga dëkk bi fi mu toll. Mm. nit ñi dañoo stressé ba il faut sax ñu il faut que sax médias yi travailler à à ñu wàcce stress bi ñu wàcce tension bi dafa am benn benn luy baax te baaxul. mais stress bi fan la jóge exactement à ton avis. mais c'est par, c'est par rapport à ce que nous subissons li ñuy dund ci jafe-jafe ni ñu koy dundee euh, les Sénégalais son agressés. 24 heures sur 24 dañoo noot daal par un système organisé bi nga xamante ni. mal am na ci mal organisé. et et organisé dans le sens bi nga xamante ni ni mu ñuy agressé mooy dañuy lépp loo xamante ni dafa am njëriñ ci ñun dañ ñu ko xañ ki ñu ko xañ nag. en partie moom sax moom sax moom nguur bi nga xamante ni ñun dañ koy incriminer sax daanaka à certains niveaux victim la ci. laaj ma lu tax mu nekk ci victime. mu nekk ci victime Sénégal dafa am jafe-jafe ndox Sénégal dafa am jafe-jafe ci ci wàllu suuf dafa am jafe-jafe ci leneen ak leneen ak ci lu bare léegi il faut se la question lu tax Sénégal am jafe-jafe yooyu. ba tey ñu naan am jafe-jafe yooyu. oui léegi ba tey ñu naan euh, kii comment il s'appelle école bi boo moytuwul dina amaat échec pour que ñu ubbi vingt 25 Seydou Nourou Tall wax na ñu du ubbi. ñoom lu tax ñu tagga tembe foofu. ndox waaw léegi ndox moom laa lay wax ni léegi ñun débat ndox. amul am na dañ koy jékki léegi lu tax loolu nga ne yàgg am. Mhm. lu tax mu yàgg am lu tax mu am ba tey parce que nom de Dieu quelqu'un toujours colonisé boo ko waxee ñu ne bàyyil koloo bi déedéet ñaara mën a nekk. Mm. dañuy def rupture drastique ñu mu dem ñu dem wala comme mënuñoo dem te tee nañu ñu ñu bàyyi mu wàcc rek mu mu mu moom mu ñëw gérer parce que nag quoi qu'on puisse ci jamono tubaab bi mu fi nekkee. xam nga tubaab dafa muus bi mu fi nekkee moom di gérer fexe woon na ba ñu mënoon am le strict minimum mooy dund nekk nit dund parce que boobu moom xam na ni sa on on lui appartiendrait presque mu téye ni mu ko téye mooy lan fexe ba système bi santé bi boo bëggee faju nga faju bu paludisme jamono boobu amul woon parce que dañuy pompe du du ay moustiquaires yii ñu ñuy gëmloo tubaab dafa dafa saay-saay daf ñu daf dafa jël indépendance jox ñu ko genre jébbal teel waaye taxaw teel waaye taxaw boobu moo ñu jural li ñuy dund nii yëpp Abdoulaye Wade dafa wax ci mandaam bi bu mujj bi bi muy laata dem dernière rencontre bi mu def bay expliquer di wax ne ne américains yi ak français yi ñoo may xeex boobu mënoon na yem sax ci français yi parce que français yi ñoo doon ruube di gëmloo américains yi ne que lii moo war a tëdd gis nga jamonoy. mu nga ma baal ma àgg. non non baal ma rek est-ce que tam parce que danga nga romb foofu est-ce que tu penses réellement que le Sénégal doit couper le cordon ombilical avec la France ndax loolu la yaakaar voilà merci léegi est-ce que dañ ko war a dañ ko war a couper ou au-delà du de la question c'est selon ni nga koy dundee mhm. Sénégal France partenaire am la Allemagne partenaire am la ak keneen ak keneen mun nañ bañ a couper cordon cordon ombilical ak kenn wante bu fekkee lenn lu nuy sonal la. dañ ko war a dagg. bu fekkee sonaloon ñu nag ñu jëm ko gérer mais ci biir gérer bi dafay laaj fulla ak fayda tey jii nii ñu ngi wax président Macky Sall ci lu bare président Abdoulaye doon wax ne ko gars yi dañ koy xeex xam nga xeex bi la woon. parce que dem nañ si jamono ba tubaab yi gis ne que kii ndekete du nu lijjanti du nu arrangé wadd bu demee ba fexe ba armée francaise jóge biir Sénégal jële leen fi mooy que eggoon na benn niveau bi niveau boobu tolloon nag dañ cee war a eggaat. malheureusement président Macky Sall bi muy ñëw dafa ñëw ci ay conditions li léeg-léeg nga wax bu yàgg gars yi ne la non non foofu dafa sensible bu fa dugg Sénégal moo toll foo xamante ni faw ñuy waxante nit ñi comprendre comprendre ne que tey président bii di Macky Sall ci contexte bi ñuy dund gis nga li fi xew nii nii li ñuy dund nii. Hmm. ndox meeg leneen ak leneen santé ak lépp. munu si dara président baal ma de wuñëw ma sa sutura baal ma de mu si dara xamul tax munu si dara dañ koo téye. ku ko téye. laa ilaha illallah tubaab da koo téye ni ko tubaab téewee nag léegi ñun Sénégal. ñun mbooloo Sénégal. tubaab bi nag dañoo yàgg di pa. Euh, waaw bàyyi ma asali bàyyi ma parce que il faut pas que tu dañuy bàyyi ñu intervenir un peu allez-y donc. <laughs> mais à l'entendre parler à l'entendre parler c'est comme si président Sall moo fi ñëw créer fii yenn relation ak partenariat avec la France alors que ça a toujours été comme ça le Sénégal a toujours été colonisé par la France. mais gis nañ ci temps à président Abdoulaye Wade des fois il leur disait bah laissez-nous vivre. donnez-nous de l'air mais attends attends. mais aujourd'hui on ne voit pas cela peut-être. mais attendez xam nga bokkul. d'accord mënoo nekk ci réew boo xamante ni nañu nangu le Sénégal n'est pas un pays développé et c'est pas facile sax de développer ce pays mënuñu dem sans euh, nu mu tuddati ay partenaires parce que yàlla ñu nattoo loolu. donc dañu aujourd'hui aujourd'hui a la régie derrière nous. tout à fait on peut pas faire cette émission sans la réalisation. tout à fait. tey jii ñu nekkoon régie bu ñu jàppale wu du ñu taxaw fii du wax aujourd'hui pas seen se qu'il dit on est tous d'accord. Mhm. ñun ñëpp ci nangu ñun ñëpp ci ànd ñun ñëpp xam nañ ni ki Euh, tubaab bi dañoo voilà. noot dañoo noot je ne dirais pas noot noot noot mais dañoo téye. ñoom dañoo téye ci poñ daal voilà. moom aujourd'hui da vous êtes très suivi cette émission est très bien suivie man. macha allah ñun ñëpp kay ci en congé c'est après que je m'en suis rendu compte. tout à fait tey lépp lu nit di wax ci plateau bi ñëpp a ñuy déglu ñëpp a seetaan yàlla may na la yaa ngi wax di développer di wax lii di wax lii mais aujourd'hui c'est que j'attends de toi parce que li ngay wax nit ñi dañ koy déglu contribue contribution lan la aujourd'hui France euh, voilà. nañu nekk en partenariat ak ñoom tu dis que dañoo dañoo note tu dis que euh, président Macky Sall dañ ko téye munu ci lan muy solution lan ngay proposer pour que Sénégal mën nu jóge ci situation boobu même bu ñu jël loolu à 100 pour cent à partir de tes idées à toi peut-être l'État du Sénégal mën na orienté wu ci loolu ba xool porte de sortie suñu xëccee loolu Passane xam naa wax ak dégg mhm. wax ak dégg wante gannaaw wax ak dégg wax ak déglu c'est c'est la nuance entre entendre et écouter dafa am fa nga xamante ni fa la ma doon àgg nga dagg ka de du daga daga daga <laughs> attendez daga ma ko de parce que dama lay ñun yàgg nañ nekk ci plateau presque tout le temps presque tout le temps presque tout le temps waaw baax na ayca papa vas-y kon solution nga wax waaw <laughs> solution fa la ma doon jëm fa la ma doon jëm xam naa xam naa xam naa xam naa yàlla ñu yàlla defal sutura ah, ah, man kaa doon xaar yàlla ñu yàlla defal sutura lafal ñu cat ba ba ba dara bañ a yàq ñëpp am jàmm. amiin président Macky Sall. Mm-hmm. ak ñi ñu àndal. Mm-hmm. Milan. Mm-hmm. ci conditions yi duñu am solution parce que ki leen téye. Mm. dafa am nu mu leen téewe mm. te na mu leen téewee malheureusement ñoom ñoo tayle joxe seen bopp noonu lii Abdoulaye Wade bañoon ñoom ñoo ko nangu lu taxoon ñu nangu ko. loolu da ngay dellu ca la la la indi processus bi histoire la leneen la mais pour jox la solution yow Aminata Dramé mm-hmm. moom laa lay wax ne la population sénégalaise yi mm-hmm. la ñuy jéem a yee li ñuy mm-hmm. def nii ñun amuñu xam-xamu yee leen sax ce serait de la prétention